Good night. Lord. génn waaw di seen ay fole. di seen i génn. defal naa ko ay t-shirt mooy yi ma sol. waaw ñëpp dinañ am. bi ma ci dara moom laa jox ak tam. waaw ñu commandé seen t-shirt lii ñoom ñoo ko ci bindee ak El Hadj Baye. waaw ñoom ñoo ci bindee le maire Amadou Dara soutien 100 pour cent Bébé Balla waxuma leen bindee leen si sama tur. waaw man maa leen jox xaalis bi dem leen commandé seen t-shirt yu rafet. moom nag defal leen t-shirt yu rafet. merci ko tawoon t-shirt yi day dem benn 3000. donc nga jox ko ses supporters yi ñu dem accompagner man maa ngi seen kanam maa ngi seen ginnaaw di gërëm sa waajur bu góor yi toog wax na ma fu mu yàgg lu mu yaakaar ci yow nga war a am jom concentré amal sa gàddu bul nangu sa morom yegg la fu mu dul yegg mën say tànk du ko dégale ñu lay donc maa ngi leen di remercier di leen di remercier waa Ndiassane bu soo demee am ndam incha allah dinañ la gën a jàppale gën la ñaanal. incha allah lii ñu la jàppale nii beneen combat bu gënee day gën a métti di nga xam ne sa mère rek sa ginnaaw. ngeen ñëwaat dina xam fan lañ fekk fekk. incha allah ñu fekkee fi faar. incha allah tey nag tey gannaaw tissu bi dama am lu ma indaale woon. waaw teel ma nii ñun de ma ma baatare ko. da koy baatare. bëri bëri animateur la bëri. monsieur le maire mooy baax rek ma ñëw xaar xaar ay na trente quarante cinquante trente oui soixante-dix quatre-vingts oui quatre-vingt-dix oui cent cent dix cent vingt cent trente cent quarante 150 160 170 180 190 200 210 220